Macky Sall yóbbu ko ci yoon jàpp kaak atte kook tëj ko kasoog yu demee noonu hé loolu du yomb de fay compliqué André Gueye évêque la ci jàngu bi ca Thiès ne faa di wax leen gis ngeen jàmm moom pour mu mën a am faaw rek dëgg ak yoon képp ku wàcc yoon ak ko munti doon yoon fa war a dal sa kaw su boobaa ci lay jàmm mën a am waaye diw def na lu na weng garaaw kenn du ko atte wala kenn du ko yóbbu ci yoon le réveil yéene kaay ne ki fi la leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na njiit réew mi Jomaay Fay fa jël dogal dakkal mboolem ay tabax ci corniche bi Pierre Goudiaby Atepa moo ko wax réew mi yéen kaay yeggee ñu ko Vox Populi feelu ko dëggal xibaar bi ne Jomaay ak Sonko fa ñoo dakkal arrêté mboolem tabax boo xam ne jaarut yoon ci corniche bi xam a gars yi fañ koo caxat-caxate woon séddoo suufu askan wi ba ku nekk commencé tabax léegi fañ leen wax na arrêté leen ña ñu war a arrêté la ñuy def dëgg-dëgg mooy kilifa yee jiite COSEC yor yor yéen kaay nee na hee COSEC da ndekk la am du jàmm pasar pasaree xalalu askan wa doxalin bu jaarut yoon rapport IGE fa képp COSEC fañ leen a épinglé de patronat ba rek xam nga at bu jot lan lañ doon jox cent millions gars yi fa séddale gâteau bu saf sàpp suukar ba tax info yéen kaay ne société civile bi ñoom fa sàkku ci président Diomaye Faye mu jëfee la tënkoon ca assise nationale lépp ngir ñoŋal doxalinu réew mi soppi yenn institution yi fañ ko bind ab bataaxal leetar sàkku dajee ak moom lépp ngir fàttali ko lam diggee woon te Abdoulaye Wade xam nga lan moo nekkoon slogan moom bàkkam il faut travailler toujours travailler beaucoup travailler liggéey rek liggéey rek te mujj gi la yàlla xam doy na Macky Sall moom bi mu nekkee président bi mu faloo bees xam nga lu mu doon wax faay jiital njëriñu réew mi bala maa jiital njëriñu sama parti yorin wu sell kenn du pasar pasare alalu réew mi ku def naka su dul noonu yoon dal ci sa kaw wax jooju nag ca làmmañ wala yem ndax li mu génnee mooy léegi nag nañ xool fan lay mujj dana ko jëfee wala du ko jëfee li ci kanam rawali gët source ay yéen mel ni ku naan ko ah président Diomaye Faye de moom bi mu jëlee réew mi ba léegi yoon wi mu aw wax dëgg yàlla daal na xel fa mel ne daal la mu digoon askan wa mi ngi koy def ndax lépp fi fekk loo xam ne injustice lu jaarut yoon joyanti na ko ba ci sax préfet ak gouverneur yeeg yooyu xam nga Macky Sall bi mu fi nekkee président fa xamoon a fañ ko war a autoriser ñu amal ko ñooñu nag bokkoon na ca Modou Ndiaye moo nekkoon préfet bu Ndar ak Babacar Ibrahima Maar moo nekkoon sous préfet bu Ndaam ak su préfet bu Grand Dakar Ibrahima Ndiaye ñoom ñii nag bi ñu bañee def li Macky bëgg fañ leen a yóbbu frigo maanaam fañ leen a teg ay daan daal waaye jomaay nag bi mu ñëwee ñoo ñëpp fañ leen a joxaat seen àq jox leen sax poste yu gën yooyu bokk na ci Modou Ndiaye mii nekkoon préfet bu Ndar léegi fi mu mooy directeur cabinet jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi El Malick Ndiaye injustice bi yëpp la réparé ko yéene kaay ne Barthélemy Diaz fa a na ak jomaay ko bëgg a sàkk si moom audience comme ni mu ko defoon Macky Sall rek enquête yéen kaay mel ni ku daan ko Barthélemy Diaz fa mel ni président Diomaye Faye talut la de amut sa jot fi mu toll nii ndax li ub boppam bi moom président Diomaye te tal ko mooy lijjanti dundu gu gi wàññi njëgu luyaas bi ak yeneen yi ni mel Birahim Seck forum civil ma ngay sàkk ci corps de yi nañ génne rapport yi leen président sant mu ko waxee ci bés bi yéen kaay ba tey bés bi wala ñaari poste nekk ministre ak maire ak yeneen yi ni na nag ba léegi jëwriñ ji ñu benn lettre démission koo xam ne maire nga woon turbine yéen kaay moom fa xëy di laajte ne Sénégal moom fa nekk ci danger wala lan moo xew ah mbootaayu xeet yi ONU fa ñoo fal koo xam ne la ñu tuddee émissaire fii ci Dakar te loolu ñoom ñaareel duñ ko fal mukk lu dul ci dëkk boo xam ne fa am crise ñun de nekkuñ ci crise yoor yoor yéen fa ca yokk na AIBD aéroport Blaise Diagne bële fañ caa war a amal audit gëstu càmbar na ko Ablaye Dieye yoree woon ak na ko Doudou yore woon affaire yi fa war a leer de ba tey turbine yéen fa xëy mu toll nii fa génn ci wàllu politique fa bàyyi ay militant wan leen moom lan lay la mu ragal moom Sud Quotidien mooy réewum Sénégal mujj ne nekk sëlëbe yoonu jaaykatu drogue yi trafiquants yu mag yi ngonk yi ndax fa ñoo gis daal drogue biy dugg léegi ci réewum Sénégal fa bëri naka noonu faux billets fa bëri ci réew mi te loolu baaxut ci koom-koom réew li baaxut ci yarkatu jur yi mooy fa ñuy sàcc seen jur yi rek ba tax ña ngay sàkku ci état mu dimbale leen levé yéen moo ñu ko xamal l'observateur moom fa ñoo xamal ne daaka Medina Gunaas tàmbali na de fukki fan yoo xam ne kilifa diine yi fa ñuy dem ca xàll ba wéetal seen borom jaamu yàlla loolu baax na laneen lu baax lu Cheikh Mahi Ibrahima Niass di def muy xalifa bu Medina Baye mooy ne jamono ji fay xamal tukkib nemmeeku ca réewum Maroc lépp ngir gën a ñoŋal jëf jëflante bu rafet dox ci diggante ñaari réew yi ci wàllu diine ak yeneen ni mel la république yéen kaay ak l'évidence ne tukki boobu sax xalifa bu Medina Baye di tukki ca Maroc moo tax ba léegi président Diomaye Faye demagul Medina Baye waaye su xalifa bi ñu bisee Diomaye fa fay dem man ma dem ci libération bi ñu xamal tey ne accident yi fa bëri ba jéggi dayo suñ si wax nit ñi fa ñuy jeex de gis ngeen diggante ba maanaam ci ñetti at xam ngeen ñaata sénégalais boobu noonu bu bon boobu nga xam ne fay rayee fa bëri loolu diwaanu Kaolack ndangaan loolu lan moo tax lii yéen a kaay na ko faa tontu gerte ga la xam nga Saalum bay gerte moom ñoo ci raw ci Sénégal gerte googu ñuy bay nag fa ci xam doomu gerte yoo xam ne fa ñuy saabu nga xam ne soo ko yéeyee fay weqatt xam nga lu koy waral li ñuy wax aflatoxine moo def noonu gerte gi léegi aflatoxine boobu nag bu ko nit lekkee même bu fekkee da nga kaa togg sax mënta ray microbe a faatu kaay bi ne léegi ay ndaw xale yu góor yu toll seen digg doole ñooy am canceru foie ca Kaolack te fukki nit yoo fa jël ñaaral am nañ hépatique B ah loolu de du jàmm l'observateur moom fa xëy di xamal ne attekat yi ci tribunal yi léegi-léegi na gars yi dañ leen di liggéey de ay xarga fuufaak ay sëriñt ngir ñu bañ a teg daan seeni mbokk ba tax yéene kaay bi na liggéey attekat fa métti de hmm, waa ma ne am na ci ñoo xam ne fa ñuy wax nag ay sëriñ leen fañ ci lekk xaalis bu bari ndax fa ñëw ñu ne la boo ma joxee temps ay millions sa mbokk mi duñ ko tëj su ma la joxee lii mu ko wala mu téye ko buñ koy attee haay fañ koy bàyyi léegi-léeg nga gis kuñ ko def nag mu dem terewul seen mbokk ma fañ koy tëj ca kaso ga ba damm fa caabi ji attekat yi tamit ngeen foog na ñoom fa ñuy bàyyi seen bopp ñëw toog nii rek di attee baax na ku bëgg a mucc daal ci kaso fexe la bañ a wàcc yoon mooy gàllaaj gu mag de